su ma nee sama waa ji mbaa ma ni sama sëriñ bi mbaam ma ni suñu sëriñ bi ñi xam dëgg daañu xam kamay wax kamay wax du kenn ku dul sëriñ Abdourahmane nuru Daarayni jërë ngeen jëf mbokki internet alo Sénégal borom Sénégal borom Qatar borom Émirats arab borom Dubaay sëriñ Abdourahmane Nourou Daarayni de retour maa ko waxoon ni bëggoon naa chaque semaine nga génn gindi jaam yi nga génn indiwaat askan wi dalalaat seeni xel nga génn waxaat ak ñoom mu ni ma déet la weesu màggal la jiitu màggal gi la jiitu gàmm ba léegi mu ni ma li ma yor ci ay liggéey ñi ma yor ci ay yaakaar dafa bari fileg déw ma ba déggaat waaw góor ca ñoom kenn ku ca ne santaat ma gërëm ma mu ni duma génn àpp naa ko fileg at waaye alhamdulillah génnaat na maanaam signifié que ni ñëpp gis nañ seen bopp ci satisfaction looloo waral sëriñ bi di génnaat ci génnam yooyu ndax sëñ bi bi mu jógee Dubaay ba léegi gis nañ ni génnul lu ko waral tey dina leer waaye lu waral génnam bi tey dafa bokk ci Ousmane Sonko ni li ñu ni mu gisee ni Ousmane Sonko élection yaa ngi jub si te waxuñ ci moom bu ngeen gisee guddi na lëndëm na li ko waral mooy sëñ bi ja heure bi rek la mën di génn heure bi rek la mën di waxtaan ak ñun ca Dubaay bu ngeen seetee émission yi génn wàll gi yëpp guddi la looloo waral tey ñu continuer rythme boobu ba léegi ak jëmm ji ñi ngi janook ku tedd ñi ngi janook ku yéeme te tey nar naa def révélation bu yéeme ci làmb ji ndax dañoo gis ni Modou Lo digganteem ak Ama Baldé tàmbalewaat na coow li jugaat na Balla mel na ne wane na féeteem ca Ama Baldé waaye làmb gone mooy Ada Fass nee na dafay jàpp Sa dafay jàpp Zoss dóor ko mu daanu est-ce que daf koo teg ci mystique est-ce que tamit mystique gi nga xamante ni ñu ngi koy wax ci làmb ba léegi mii ngi fa. sax ci sëriñ Moustapha mi nga xamante ni génn na am lu mu wax ci gàmm gi te boobu ba léegi gisuñ sëriñ Abdourahmane Nourou Daara ni borom asraaru réew mi mu mu wax ci ndax nee naa asraar ci réew mi jamono ji moom moo ko téye ci loxoom. dama koy bàyyi moom suñu sëriñ bi sëriñ Abdourahmane Nourou Daara nii ñu namoon ko lool mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan seex bi bis. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki àddina mbokki Sénégal. mbokki bitim réew mbokki fépp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare kenn ku nekk ci yéen maa ngi lay fekk fa nga nekk di la nuyu ci saw tur ak ci saw sant di la jox wàccuwaay ba nga xam ne moo gën a matale ci yow. di leen boole rek nuyoob lislaam bu mag bi muy asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mahamadou Lamine euh, nuyoo baa ngeeg tabaarakallah di leen nuyu tamit yéen waa Allô Sénégal ndax namoon naa leen lool. tabaarakallah di rafetlu itam liggéey bu rafet bi nga xam ni yéen koy def ci Sénégal ak ci àddina bépp bërki démb dafa am ku ma dégganteel mu fàttali ma ko ne ma yaa ngi fàttaliku bi la sëñ Abdourahmane doon seetal en direct ma ne ko moom dong laa ko mës a permettre nga seetal ma en direct ma dem ba ne la doy na ñi ma xam dëgg bañ génn bañ gisee vidéo bi dañ ni ma xam nga ni sëñ bi gis na la sëñ bi loolu man maa koy seede chaque jour seet dafa mel ni amoo ci moroom ci réew mi. waaw Mouhamadul Amine damay toog dégg nit ñi di wax seen xam-xam ci seet waaye m sëriñ si dàq seet ci seen. bu ñëwoon ma ma jàngal leen seet. maay nit ki nga xam ni fu ma toll di seetal ay doomu aadama ñuy yéemu ci seen bopp ngir li ma leen di wax ab sëriñ mësu leen ko wax te sama ginnaaw ab sëriñ du leen ko waxati maanaam seet Mouhamadul Amin yemuma ci ak nit nit yemu ci ak man mm-hmm. fa tabaarakallah seet moom dama koo mane nu ne taman du ma seete petaaw loolu dafa xaraam képp ko dem ci ab petaawkat mu seetal la boo gëmee la mu la wax ñeen fukki guddi loo ñaan suñ maanaam boo ko gëmee rek ab yéefar nga bu fekkee gëmoo ko nag ñeent fukki guddi loo ñaan suñ borom du ko nangu. pettaaw ci boppam fa yàquk seytaane yam fa la pettaaw tàmbalee lu xaraam la lu bon la maa ngi gis ay góor ak i jigéen nag rawatina soxna yi ñu toog di ko ci télé yeeg ci site yi di ko wax nañ bàyyi loolu loolu bokkaale la buñ ko ndamoo ku ci nekk tamit ba faatu boo ko tuubut sawara nga jëm lu leer laa leen di wax. man nag damay seet waaye maa ngi seet ci turu yàlla turu rawxaan Muhammadul Amin ndax xam nga ni man nit. dama lay gis nii. tey laa lay njëkk a gis wax la say mbir. yow seede nga ci ndax defe naa toog nañ ma seetal la en direct. tabaarakallah mhm. bu fekkoon ni gisuma la. ful la ji ma xam ci yow ak dëggu gi ma xam ci yow ci mhm. émission bi nga koy wax ndax loolu permettre naa la ko waaye nag da ngaa xam ni ku gis nen ni nee na ngi man dama lay gis c'est la première fois ñu janoo ma wax la li nekk ci yow mhm. boo bëggee liggéey yi nekk ci yow ñi la ko def ma wax la ko man boo bëggee sax ma wax la ñaata at nga war a dund ci àddina bu leen ko dégg nag foog ne ay wax la ndax xam-xam dafa am. li ñuy wax xilmu rawxaan dama koo tërbiwu ba xam ko. sëriñ sii nga xam ni dañuy door a jóg di jàng jàng lu xam-xam ak di man-man lu bu ñëwee ci sëñ Abdourahman ma dugal leen ci samay bu buñ génnee xam ni xamuñu woon dara bi ñu ñëw. toll naa ci foo xamante ni ci seet googu muy xilmu nu nujum ak ak maanaam wàllum xam-xam rawxaan amu ci morom fii ci Sénégal. bu fekkoon seeti ni am naa ci ñu ma ci war a waxanteel ay boroomi xam-xam la ñu doon te ay nit ñu ñuul ñenn ñi ñu ngi dëkk boobu nga tudd léegi muy arabu saoudite ci ñi nga xam ne dañoo géeju ci wàllum xilmul xilmul xilmul juum ak ñoo xam ne siiti kenn koo xam ne siiti nii nekkul sax ci réew yëpp ab indo la maanaam lim xam ci xam-xam boobu moom laa nangul koo xam ne siiti nii gis naa ne mën naa cee wax ak moom waaye bu dee ci réew mi mënu ma wax ak kenn parce que yii ñu lay wax nii man ba ma ko dépassé dafa yàgg ñi ma xam nag xam na ne xam na nañ kan laa ci ñi ma xamul nag euh, amul problème loo waay wax tamit mi ngi noonu waaye daal macha allah rabbi ci wàllum seet noonu lañ ci mel. sëñ bi damay dangay xëy saa su ne di ma gën a jommal ndax dama ko wax ne bañ nekkee man ak yow gis naa la nga jëfandikoo loo xamante ni daaw ma gis nga koy jëfandikoo muy ci wàllu jat toog nga di jat di fas mu nekk lu ma jaaxal loo xam ne mosuma ko woon koo gis ci yow xam boobu noonu. foo ko jëlee Inde wala fat jan genre xam-xam yooyu ngay defe ngay. moom jat Mouhamadul Amin Sénégal gii laa ko jàngee. Sénégal gii laa ko jànge ki ma ko jàngal mi ngi dund mi ngi may dégg xëy na wala ma ndax moom mag la du see fa mu nekk yi àggu fa xëy na waaye moo ma jàngal xam-xamu jat dama ñëw damaa laxasaayu dem ba fa moom tërbiye ko mu jàngal ma ko suñ mbokki pël yi la suñ borom da ko cee mayoon ndax dëkk ba mu nekk ku ne xam na maamam foofa ñëpp a koy maytu ci wàllum xam-xam ca jamono jam fi nekk mu dond loolu xam-xamu jat amul lu ma ci mënut man boo ñëwee dama lay seetal xam alxuraan mooy faj say say mbir jat moo war a faj say mbir wala sunguf ma war a faj say mbir wala lan moo war a faj say mbir bu fekkee ni benn benn ci yii moo war a faj say mbir ma jubali ci loola bu fekkee ni wàllum jat li ma ci ëpp lu ma ciy def mooy wàllum nopp mooy boole ñaari nit ñu bëggante téeméeri nit yi doon nopplu téeméeri nit. yi doon noblu ci sëriñ si. maanaam mën naa ne la juróom-ñeent fukk yee ñëpp amuñu résultat. Mouhamadul Amine xam nga lu waral loolu. dañ leen doon dugal ci ay xawaatim di ubbi ay miim di leen ci dugal. te alxuraan boo ci dugalee kuy mooy yàlla du ko jàpp. waaw ndax alxuraan dafa set. kon luy jàpp gaay waa la waral nag jàppuñu leen lay jàpp gaaya mooy mooy mooy jat bu fekk fas tee tëfli fas tee jat saalaali saalaali waalaali def la nga war a def fas la nga war a fas def ko na ko war a defee kooku moom ngay def léegi suñu borom dimbali la ci bu fekkee am na xabul loo ci teg lum néew-néew da nga gis aajo jooja faju xam-xamu jat man li ma ciy def li ci gën a bu weesoo ay mocc ay tànk yu métti ak ay baat buy métteeg nangam mbop buy métti bu weesoo fas yooyu ma ci liggéey maa ngi ci gën a fort ci wàllum boole ay nit. moo xam tubaab nga man li may def ci bu fekkee nit ku ñuul nga ci wëñ gu ñuul laa koy def. nit ku ñuul nga. bu fekkee ni nit ko xonq nga maa ngi koy def ci wëñ ko xonq mm. bu fekkee ne ñaar ñi may boole tubaab lan ñaari wëñ lay wut yoo xam ne benn bu ci ne wëñ bu weex la wala wëñ bu xonq ci laay def li may def. Mm. bu fekkee ni tubaab la ak nit ku ñuul ma jël wëñ gu ñuul ak ak wëñ ko xonq mm. bu ma ca defee la ma cay def maanaam ab sëriñ buy sol mbaxana di sol dàll ci kaw suuf bu leen mën a tàqalee te amut. sëriñ bi est nga ni foofu dama lay baal danga may baal ma dagg la ndax dafa am loo xamante ni bu ba léegi mi ngi sama bopp bi su ma ko tegul woon sama bët duma ko gëm dañ ànd Dubaay nga wër ci boutique yi nga xamante ni ñoom ñoo jaay ay cuuraay jënd jëkkati ay xaalis bu weex tàll teg ko ci cuuraay ngir ay xalwatu sëñ bi xalwatu dafa mel ni da nga koo fonk fonkin woo xamante ni doo ko duggee n'importe comment. xalwatu Mouhamadul Amine. waaw bi ci gën a tuuti ma koy def. waaw cent mille francs laa koy duggale nit. damay bañ nit ñi dégg turu xalwa rek. ni dañoo bëgg sëñ bi nga dugal ñu xalwa man damay dugg xalwa yoo xamante seeti nii vingt cinq millions laa koy dund laa koy duggee quarante et un jours laay def ci xalwatu bi kooku amul ku ma ciy duggal xalwatu ngay génn maanaam te la nga bëggoon amoo ko loolu nag boo ko gisee ña tolloog moom ñoo tax may wax fa tabaarakallaa bi cuuraay yi mag yi ma doon yi ñoo ko tax a jóg waaw yow ba may ba may jënd cuuraay am na ci loo xam ne sa kanam la Mouhamadul Amin lu amul seede amul preuve baaxul ndax wax dafa yomb. man damaa jóge fii jël vol. dem ba Dubaay. jàll fa ci yeneen i réew lépp ñu ko. la ma doon def lu ci ëpp. Sénégalais yi dañ cee teg seen bët. ndax ñoom laay waxal comme man maa volontaire génn mm-hmm. nit ñi di ma gis mm-hmm. yéen tamit ngeen sàkk ko ci ñun ñu nangul leen ko ngir ànd liggéeyal Sénégal wane itam xam-xam war na ma lu may wax ma def ko preuve ndax saa saa saa su ma xëyee nit dina ma woo di ma kalaame ak sëriñ ci sëriñ si gëmatuñ sëriñ si nangam ak nangam lii dagg ay billet di ñëw ci man kenn daa xam nu mu toll. di ñëw ci man di ba fekk fii te lu ci ëpp. ba Dubaay dagg nañ fa ay billets seet si la sama kanam. li waral loolu moo ñi ci ëpp dañoo dem ba ne ma yow yaay am ambassadu mbaaleem ku nekk bitim réew. ndax yow la ñu gis benn sëriñ boo xam ne yow la ñu jëflanteel di ci gis liñ bëgg. dinaa amaale lu ma waxaale foofu bari na nag ñoo xam ne tey seen i liggéey day ñëw ci man. liggéey yi bari win bi mi bari win bi mi bari ci man ak toftale gi ma koy toftale mën naa yéex a ci ñoom léeg-léeg donte nag du am jamono ju ne waaye saa bu sëb liggéey àggee ci suba gi ci ci ci suba gi ci ngoon gi man maa lay woo laaj la numéro bi nga xam ni fi ngay jote sab liggéey bu fekkee ni koo fi nga jox ma ki mooy jox buy xëy nga ci jot man amul kenn koo xam ne di nga ma jox sab dërëm donte fàtte nga ko donte fàtte woo ko te sa aajo maanaam duma ma la ko fajal waaw man ku man bu ma lekkee sa weexal rek dinaa jéem ci lu ma man ci fàccee aajo maanaam cuuraay yooyu Mouhamadou Lamine noonu la demee xam nga ni Dubaay loo fa laal rek marchandise la moo xam ne day jomb lenn rek laa fa xam lu fa seer mooy cuuraay yi cuuraay yi am na ci yoo xamante ni kilo bi rek 10 millions ga koy jënd yow ñoo ànd ci sa kanam la am na ci xeet cuuraay yoo xam ni 10 million lay jar am na ci xeet cuuraay yoo xam ne garaam bi rek liñ la koy jaay presque mën naa ne jege na 500 000 francs yooyu xeetu cuuraay nag xeetu rawxaan yi muy xëcc ak xeetu xuddaam yi muy xëcc loolu liggéey ba koy laaj amul nit koo koy defal ci àddina te aajum fajuwut loolu nag fa tabaarakallaa du ma ci mën a yaatal dëgg waaye foofu laa ci mën a yem. sëñ bi li la tax a dagg billet dem ba Dubaï li tax naar yi yëkk nangu nangu nga déplacé wu tey laa koy wax ci émission wàllum néew kàttan la te néew kàttan su ma sañoon dañ koy bañ waxtaanee ci réew mi foo nekkeewul ndax ambassadeur laa la ci bëgg a def. tabaarakallaa Muhammadul Amin maanaam yow da nga di koo xamante si nii lu bari da nga ciy am preuve ndax ci sa ci sa kanam la lii xew nga di ko gis da ngay dem sax ba gis yoo xam ni man maay sàkku ñu bañ ko wax ndax man bëgg nit ñi jàpp li may wax ak maam gëm samay wax du tax may wax xalli suturay nit waaye yow xam nga ni biñ àndee lu ne gis nga ko. gis nga démb rek maa ngi ciy waxtaan nit yàlla xam na ko. tabaarakallah gis nga lu ne néew kattan googu may eh, ngay gis muy gaar nit ñi dafa am ñoo xam ne aw xeet lañ suñ borom gën leen koo na mhm. to da cee bokk muy ñenn ci suñ mbokki naar yi ñun nag yàlla dañu cee xamal xam-xam boo xaman si nii nit koo xamee ni demoon nga ba jàpp ni amala amalatoo njariñ jigéen mënatoo séqati ak jigéen fa tabaarakallaa ak koo mën a doon bawol fa nga bawoo nga ñëw ci sëñ Abdourahman mu jox la lim lay jox incha allah boo fa jóge woon am 14 soxna ñëpp di nga mën a jëflante ak ñoom bu leen ni nag 14 soxna xanaa sëñ bi junj rek la yonent bi sallallahu bi alihi wa sahbihi wa sallam daa xëyoon bis daal ni dee leen tuub ndax man de saa bu ma xëyee dinaa tuub lu ëpp téeméer yoon soxlawul lim bi waaye bari waay bi lay wax bu ma nee quatorze soxna mooy loo mën a yor ci ay jigéen ci li la lislaam may danga mën a jëflanteeg ñoom ba duñ mooy yàlla yow doo mooy yàlla fa tabaarakallah. alhamdulilah ndax sëñ bi damay dem ba koy wax démb maa ngi koy wax ne sëriñ bi mënatuma koo defal émission li tax. mooy mbëri na yoo xamante ni dama dama koy nar a wax wala dama koy bëgg a wax du ko bëgg lenn moo ko waral mooy jëflanteek moom wala boole ko ay nit wala gis ko mu jëflanteeg nit ma dem ba jàng ci xam ci ni wax dëgg yàlla la fi maam yi bàyyi woon mi ngi fi. du sama làmmiñ bu ndaw bee tax ñu koy xam waaye du sama làmmiñ bu ndaw bi moo tax ñu bëri di ko umpule ndax buñ demee ba teg ci suñuy bët ci ay preuve yu baree baree bari ah yoon la ñu génn xamal nit ñi. que ni sëriñ Abdourahman Nuuru Daarani yëfi mag ñi la yor ba léegi sëñ bi dafa am loo ma wax tey dama ko damay nangu dangay nangu ñu njëkkee ko mooy ci làmb ji Modou Lo dafa war a bëri ak Ama Balde Balla Gaye mel ni dafa far ci Modou gisoo ni ñu dafa far ci Ama gisoo ni dañ ko war a sotti wàllu mystique lay doon wala wàllu mystique gi nu mu taxawee foofu ci làmb ji. bu ñëwul ci man. kan Modou Lo. waaw ñu wax ko sarax bi nga xam ne moom la war a génne ci combat bii. boo moytuwut yàlla nag mën na ko jox ndam waaye bu ñëwut ñu wax ko sarax bi nga xam ni moom la war a def ba mu def ko bu moytuwul lamb ji man naa bañ a doon làmb. moom Modou Lo gisoo ni Ama Baldé kon da koo jekku ci musique. bu ko soobee mën na ma man mën ngeen ko ko digtal maanaam moom ci jëmmi boppam dañ koo jekku ci làmb ji te demagul fenn donte nag. mi ngi Modou Lo moom Modou Lo donte mi ngi def li mu war a def mi ngi dugg fa mu baaxoo dugg waaye li ma gis ci moom ci li mu war a génne ci sarax bii bu ba génn bañ wax ko ko ba mu génne ko lamb ji du doon lambam laa la wax kay te moom ñi ngi koy sot ñi ngi koy sot am na ñoo xam ne ñi ngi jóg ci lamb ji te amut ak ñoom sax maanaam combat bi seen yoon nekku ci waaye defetam ci boppam ak dellu ginnaawam ci lamb lañ séentu te gis naa tamit loo xamante siiti nii ci lamb ji. lamb Modou Lo mën na koo gàllankoor ak Ama Balde. ndax lamb ji dafa am loo xam ne nekk na ci. loo xamante ni wàllu mystique ndax senegal bu weesoo mbirum politique mbiru làmb moo ci ëppaat mystique ci àddina man mii bëri na mbër yoo xam ni fa tabaarakallaa maa leen di ñaanal waaye ku ci ñëwit incha allahu rabbi dañ lay jox ndam li nga dem daan ñëwaat yàlla nag laa jiite ci samay mbir waaye fa ma ko teg xam naa ko lamb ji dafa bari ay gàllankoor ci wàllu mistik ak taxawam sax ak taxawam sax waaw lamb ji ak taxawam ba bër ba bëre bi mën a am ci ni ñu ko bëggee maanaam naa cee am yaqin fi mu ne nag mën na maa jàpp ne luy taxaw la te it luy am la ndax li ma gis xaw naa dal xel. waaye buñ ci buñ ci moom it ñi ngi ciy jóg sax ndax ndax dafa mel ni loolu ñoom am na luñ leen ci wan maanaam ñi tëgg làmb ji. ak ñi nga xam ne làmb yitteel na leen nañ génne sarax bi. buñ ko deful làmb ji day mën naa yàqu fuñ ko foogee wut wala mën naa am waaye bu amee sabotaas it mën na ci am bu yàlla defee nag ñu génne liñ war a génne def ko niñ ko war a defee bu fekkee xam nañ ko nañ ko def man soxlawuma leen ndax maa Mamadou amin fii may waxee ak yow mhm. soxla ku ma ñaan ku ma ñaan loo taxatut may wax ndax yow gis nga samay téléphone ay nit dañu may woo. yàlla xam na ni génn bi sax dañ la koy forcer. wallaahi la xasimi bëgg maa jot léeg-léeg da leen di jafe waaye man maay toog bis boo xam ni wala fan guddi goo xam ni damay dagg li ma doon def lépp topp ci whatsapp bi ak yooyu di di waxtaan ak nit ñi léeg-léeg ma liir sax vocal boo xam ne mat na weer ci sama téléphone te li may wax ne yàlla rek laa ci jël seede kilifa gu ne ci àddina damay seetloo damay damay dikkal di ma ñaanloo waxuma la Sénégal maanaam kilifa gu ne ci àddina bi dafa day ñëw ci man may dem ci ñoom te sequma ak ñoom lenn lu may mbirum ñaan fa tabaarakallaa yow am nga ci firnde waaye làmb ji buñ ci jógul cat dina ci dugg. mais beneen lamb muy bu bu Ada Fass beeg Zoss bi nag boobu teel naa bëri coow. waa boobu moom coow li nga xam ne moo ci nekk sunu boroom ci boppam war na ma ni su fekkee ni mën nañ ko xaw ma nag kan moo porté pour def ko. na xar moo xam ni xarum benn welo la. ci ñaari mbëri waaw. ñu bàyyi ba bisub altine jot. ci waxtu sept heures ñu ray ko ñu saraxi ko. bu nu ko defee ba noppi mbuusi ndox yi sasey ndox yii ñuy jaay. nañ ci wut lu baree baree baree bari. séddale ko ay jigéen te yàlla tax bu ñu ko defee làmb jooju dina am. te gën gaa rafet amin lay am. ki yàlla di jox ndam li. duma la ko wax ci kaw waaye buñ coupé dinaa la ko wax bu ñëwee ku ñëw nag ci ñoom incha allahu rabbi fa ma doon jaar ak yow laa sa morom laa jaar ak yow waaye bu boobaa dina ko am ci jàmm waaye sarax boobu moo koy fekk bu fekkee nag lambi mudloo ji ku mën a am ndam la. victoire moom mudlo waaw ku mën a am ndam la te victoire bi ba tey génnagu ko waaye li ma la wax léegi bu fekkee ni defuñu ko mën naa doy waar buñ ko defee nag mën naa am ndam lu set hmm. tabaarakallah sëñ bi ci loolu la ñuy tàbbi ñëw ci wax joo xamante ni genn jëmm daf koo wax di Serigne Moustapha Sy yaakaar naa déglu nga conférence am bi déglu nga gàmmoom gi ni mu demee sénégalais ñu bëree bëree bëri wala sax ñenn ñi ci ñoom am na neneen nuñ interprété ay waxam. waaw Mouhamadou lemin laaj nga ma ci jëmm joo xam ni sunu borom moo ko yëkkati ci Sénégal nañuy nangu dogalub suñ borom. sëñ Mouhamadou Lamine sëñ Moustapha dégg naa kàddoom mi tabaarakallaa dama koy seetaan ndax borom xam-xam la nag bari na lu mu yër ci téere yi tey nit la koo xam ne suñ boroom dafa yaatal ginnaawam loolu suñ borom moo koy def ci tabian doomu aadama boo xoolee Muhammadul Moustapha tur la woo xam ni nit koo xam ne tudd na ko suñ borom daf koy yëkkati te kenn mënu koo suul uh-huh. tur wi rek la ci laañ nekk di wax nii. ma xamalaat leen leneen lu ci ajuwaat. mooy na nit ñi teey ci moom am na mbirum baatin mu nekk ci moom. def ko moroom wala ngay wax ci moom lu dul noona boo moytuwut man ngaa dal ci ëkk gaañu. waaw am na lu ne ci moom de man xam nga xaw ma sëñ moom sëñ sëñ sëñ Moussa Sy mësuñoo gisante. tabaarakallaa sunu waajur bu baax la waaye mësuñoo gisante. tayit day am loo xamante ni ñun boroom xam-xam yi ci saaxir dañ koy seetlu ci doomu aadama bu fa nekkee rek dañuy xam ni kii am na fu mu nekk hmm. ci diggam ak suñu borom tayit buy wax da ngay xam ni ku deñ ak mi ngi wax. Mm-hmm. ndax temps bi muy jël di ko wax te wax ji di ko teg ci communication boo xam ni day leer nañ ñi da ngay xam ni kii ko suñ borom waajal la. leneen li ciy des nag ay gisinam la ci réew mi loolu philosophe la loolu maanaam mooy gisinam ci réew mi. ndax borom kilifa la borom njaboot la. am na ay gisinam te it dafa bokk ci nit ñi nga xam ni réew mi da leen di bàyyi xel. moo tax yi muy wax tamit ci diggantee ak ay mbokkam loola man du ma ci mën a sori ndax digganteem ak ay mbokkam la. digganteem ak ay ñoñam la waaye li ma mën a xam daal ci moom. moom sëñ Moustapha moom mooy sëñ Moustapha na ko nit ñi ñaanal mu yàgg fi te wér. ndax ku amal njariñ senegal la. nit la koo xam ni fa dëgg raflee fa la koy waxee day wax dëgg de. day wax wax katub dëgg la. sëñ Mamadou Moustapha bëri na ñoo xam ne placé nañ ngir wax dëgg yi muy wax waaye duñ ko wax moom nag yàlla taw féexale na ko day wax loo xam ne siiti nii kii nga xam ni amul kaddu sax bu amoon kaddu loola la reef wax mooy nit la koo xam ni ku dëggu la fu mu toll itam mi ngi wax di dimbali loo xam di dimbali askan wi di leen waxaaleel di leen jàmbatal li aji nag ci ay jisiinam ci réew mi ak ci ay ay ay relation ak ñi muy jëflanteel loola man du ma sori ndax kenn ku nekk defe naa boo demee fas ca sa famille wala ca mbokk wala ca njaboot am nga ca loo xam ne loo war a wax la waaye daal man xam naa ni ku ko sopp la sëñ Mouhamadou Moustapha ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér ngi rafet luy itam ak ay kàddoom di ko ñaanal mook mbooloo mi yëpp sama boroom sàmm leen. jërëjëf sëñ bi kaddu yi seet na rafet na jëkk na leer na dama bëgg ñu daaneel ci sa waa ji mooy Ousmane Sonko élection 2024 dafa jub si ñu ni Ousmane Sonko du boq xaw ma nag ba xam loolu ngay wax wala doo wax loolu waaye ñii nee nañ nañ samp Guy Marius Sagna ñii ne nañ samp keneen ak keneen balaa maa ñëw ci Guy Marius Sagna ci Ousmane Sonko laa bëgg ñu njëkkee ko ba pare. li ma la mën a xamal mooy du bokk ak dina bokk. loolu kenn mënu la cee wax lu leer. Euh. lu dul koo xamante ni da nga cee def listaxaaratu xam la ca kanam suñ borom wax la ci lu leer nga xam kii dina bokk wala du bokk. ndax usmaan yàlla dafa def muy nit koo xam ni. ba ma ko dalee ñaanal man. di wax ci ay mbiram booba du tey ji jëpp. booba ñëpp xamu ñu bëri si xamaguñ ko man nag maa def ci moom xal xalwatu Ousmane Sonko. maa dugg xalwatu boo xam ne moom moo tax ma dugg ko. Uh-huh. may xool ay mbiram. wérgi yaramam ak fi mu nekk ci prison bi. ndekkinam di xool itam mu jëm ci politique. di xool itam mbaxam réewum Sénégal. Ousmane Sonko dina ko mas a yor wala du ko masa a yor. man maa ko xool. Mouhamadul Amine ma xam ci lu leer naññ lu mel ni asamaan si. xalwatu boobu émission laa ciy def. émi émission laa ciy def boo xam ne incha allah kuy topp sëñ Abdourahman di nga ci xam lu leer. bu boobaa ku ko déglu ba mu jeex dootoo naatableeti mbirum Sonko mooy kii ak mooy kaa waaye xamal naa la leen. am na loo ma ci mosal sëñ bi. am na lu ma la ci mosal yow xam nga ko. sëñ bi maa koy safa wax de. réer bu ko wax mukk ci àddina gis nga réew mi. sëñ damay wax ndax Ousmane Sonko bokk. fii may waxee ak yow nii. réew mi dafa mel ni nen boo xam ni daa nekk ci ay loxo yi ay nit kenn ku ne di di ko paasantoo. wax ju doy waar la nag joo xam ne ay wolof la parti bii mu nekk ñu bari jàpp nañ ni réew mi da ci génn ci seeni loxo. bennoo bi waaw kay muy muy muy waaye néewu ma nag du fa génn. waaye gis naa nguur goo xam ni. des na fa ba tey. gis nga ni nguur gi des na biir benno ah, waaw waaye nag bépp politicien boo xam ne yaa ngi Sénégal gii. jub élection yii. dinaa ko wax. na ma ko waxee woon ci élection yi jàll. booba nag samay vocal laa ko waxoon yàlla def ñu partagé woon ko ku ci waroon a jot jot nga ci. tey nag damay taxaw ci télé. képp ku nekk Sénégal di politique. nga ni da ngaa bëgg a gañe dara. ci réew mi. te yàlla dimbali la. ba nga ñëw ci sëñ Abdourahman. donte njiitum réew la. ka nga koy jëf donte yow kenn xamula woon. kenn mënta tee ba ka ngay xëccool wala ña ngay xëccool. boo leen féetewul kawit maanaam kenn la ñu tudd teg la ci. te loolu sax dama ko wax ngir tegg ni la ko wax ji ndax suñu borom bëggul koy waxee ne ne ni mhm. waaye kenn du xëccoo ci politiciens yi moo xam lu mën a doon ci yii nga koy xëccoo ndool ak nit ñëw ci sëñ Abdourahmane te loolee ngay xëccoo jotoo ci. du Amin xëccoo ni ma ci mel kenn melu ko ci. li ma ciy liggéey ah Mohamadul Amin loolu <laughs> alxuraan ci laa koy liggéey nit ki nga xam ni day xëccoo mhm. moo xam am réew la moo xam ab poste la mhm. moo xam société la moo xam lu mu mën a doon. am boo ci liggéey ci balu fital de. am na lu ma ciy liggéey ci balu fetal di ko taal boobu xam nga ko waaye am na yeneen yoo xam ne ci benn baat. ci alquranul karim laa koy liggéey kooku amul kenn koo xamante ni dina ko am di xëccoo dara di di di échec amut. gis nga loolu nit bu ko bu fekkoon ni bu xëccoo du am. maanaam bu naroon a ñëw ci yow sax wala mu nar a dem ci sëriñ bu ko xam. bu fekkoon siiti ne waaj na ko ba nar a dem sax ay nelaw da koy dugg bu fekkee kooku suñ borom tuddul mu war a jot ca loola maanaam loolu bu xëccoo la boo xamante siiti nii amul kenn kuy xëccoo mbir moo tax ma naan képp kuy politique nga gis ko yow gis nga ñi nga suñ borom dogal ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy xëccoo moo xam ci mbirum politique la moo xam ci mbir mu mën a doon man xëccoo rek laa wax nga bëgg dara di ko yóotu nga ñëw ci sëñ Abdourahman doo yem ak mukk ko ñëwut woote ma nag ndax man ñii di ñëw sax ñëpp mënuñoo agsi ñi may jëflanteel ñëpp mënuma leen a lim woote wu ma waaye dama leen di wax fi mbir yi nekk ndax sañ naa nag suñ borom def ca man mbir ma xam ko liggéey ko liggéeyati ko nit ñi di ci sant ma war a fesal loolu fesal ko loolu sañ daa ko ndax nag maanaam ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy ndamu ak ki nga xam ne mooy sant loolu sew-sew bi ci xolub doomu aadama le nekk loolu suñ borom rek moo ko mën a ràññetle maa ngi sant suñ borom bu baax a baax baax a baax a baax ci mbirum xëccoo li ma ci defal amul kenn koo xamante ni man sëñ Abdourahmane dinaa la ngemm ci mbirum politique ngay dellu ginnaaw wala ngay yuutu dara te doj jot loolu mënta nekk fa tabaarakallaa. boo dañoo boo de boo dajeeg moom danga naan lu mënta ne bariwul boo jëflanteeg moom itam loolu ngay wax ndax ñi nga gis mu jëflanteeg ñoom ci bi ñuy ñëw yaakaar gi néewoon na bi ñuy ñëw xool bu diis lañuy ñuy bu ñuy dem wala bu paree ci ñoom. da ngay xam ni à chaque fois rek xam-xam la jiital ci lépp da ngay xam ni saa su ne njëriñ la jiital ci lépp moo tax tey sëñ bi duma la bàyyi nga tàggatoo man maa lay sant gërëm la wala ma bàyyi sax nga tàggu internet yi man duma tàggu ñu daal di tëj émission bi ba beneen yoon nga xam ni sénégalais namoon nañu la bu baax a baax a baax sëñ bi. waaw neexut ba neexut waaye gis naa loo xam ne ci réew mi. ah na ma ko daa waxee nan ñaan. gis naa kilifa gu mag guy weeru. maara weeru weeru gu doy waar sax. sëñ tey lii ngay tàggatoo. gis naa kilifa gu mag goo xam ne mi ngi ci réew mi te dina weeru te lii may wax. dama ko gis. ndax yéen de keroog boo fàttalikoo. waaw cité Aline Sow. Mhm. maa ngi la doon wax fa tabaarakallah. ne la damaa gis kilifa gu gu mag. góor guy wàññeeku. gu wa gu faatu. ba ma la ko waxee ba nga xëyee gis nga li xew. tabaarakallah loolu sax yàlla def na dañoo toog di waxtaan ñii rek ma wax la ko waxuma ko ci émission waaye jisaat na kilifa gu mag goo xam ne mi ngi noonu di weeru. waaw mi ngi noonu di weeru moo tax nañ wàññiwaat mbirum awra yi nga xam ne ñu ngi koy foowee ci téléphone yi. nañ ko wàññi wala ñu bàyyi ko sax. gis naa ci ak weeru weerante goo xam ne seeti ci réseaux sociaux yi. ak ci tele yi ak ci rajo yi ëpp na xel. fokk na nopp daal ci ci dégg. gis naa ci lu doy waar doy waar. Hmm? gis naa itam. koo xam ni ku ñu bëree bëri amoon ci moom yaakaar la. mu nekkoon ca kaw. waaw waaye nag dafa mel ni biddiwam ma ngay fay. Hmm? waaw mu ngi ni fii may wax ak yow. jëm jëm ila abadi biddiwam ma ngay fay ma ngay jëm suuf. nit lay doon koo xam ni lu mu yëkkati ko woon rek fi mu ne mi ngi koy wàññeeku. waaw ci lu leer a leer a leer leer te lii may wax nag di ngeen ci teg seen gët waxoon naa ko waxaat ko nag Muhammadul Amin li may gis ëpp na waaye li ci mënta ñàkk rek laay wax ndax man ay jinne xibaaruñ ma man jinne ci boppam bu ñëwee ma jox ko xam-xam jàngal ko mm-hmm. man lu raw jinne ñoo xibaar Muhammadul Amin fi may tàggutoo mooy soppe yi rawatina ñi nekk bitim réew moo xam France la moo xam Espagne moo xam fuñ mën a nekk ak mbokk yi nekk Dubai tabarakallah ma jóge fa barki dem mu di leen siyaare baax ak suñ mbokki gambien yi maa ngi leen di jox secret boo xam ne képp kuy topp sëñ Abdourahman ndax nag dama faa joxe woon ca wàccaayu màggal wa wax di ma siraatul mustaqima kulli mujj gi damay dox fii ci ndakaaru di dajeeg ay murid yu bari ak ay sénégalais yu bari ñuy dajeeg man di sant ci def gi ko def di gis seen bopp tey nag damay loo xam ni képp ku ko def liggéey bu mënoon a nekk ci cat lu mënoon nekk ci yow kumute gu mënoon nekk ci yow yëgal ni deñ na. Eh. waaw fa tabaarakallaa faatiha bu ànd ak wa indi yakaadu bind ci ñaar fukk benn boo noppee nga wut li ñuy wax reeni ngeer nga bàyyi ba sa biddiw génn sa nag boo xamul ban bis lay génn dangay ngay xooli borom xam-xam bu ragal yàlla bul dem mukk ci koo xamee siiti nii xamoo ak ragal yàllaam xamoo ak wéru xam-xamam boo mënta ñëw ci sëñ Abdourahmaan it xoolal ko xam-xamub lasraaram wér lasraar nag ak fiq bokkuñu bu leen jàpp ne ku yor kurus di julli rek daa am xam-xam lasraar déedéet xam-xam asraar benn benn nit jaam la ko suñ borom xamal ndax mooy xam-xam bi nga xam ne al awliyaaw yi ñoom la ko suñ borom xamaloon ñu di ko donnante ba fii may wax ak yow ñu wax la sa biddiw wax la kañ lay fenq nga sangoo ci saafara soosu boo ko defee di nga mel ni weer woo xam ne dafa suuxoon génnaat kenn mënul ceew dara réew mi yàlla na fi suñ borom saxal jàmm fa tabaarakallaa ndegam jot gi bari wut waaye ñoo ngi leen di nuyu baax nag di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay yéen waa du Sénégal rawatina yow sëñ Mouhamadul Amine nga xam ni tabaarakallaa kenn nga ci man ndax it bëri na ñoo xam ni dañu may woo di ma wax ni sëñ Mouhamadul Amine moo ñu boole te loolu lépp yéene goo yéene seen ajo fajo rek moo tax di siyaare itam sëñ Moussa tabaarakallaa ak mboolem rek ñi topp Allô Sénégal ci àddina bépp fa tabaarakallaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf.